pronostic benen ba ki le pronostic match bi di ñew Sénégal. Euh, Algérie Algérie. <laughs> Sénégal ah gëm na mu door ko 2-1 wala 2-0 waaw waaw. si match Sénégal Algérie bu suba. ah match bu Sénégal bu suba dal man daal séntu naa si 3 bi yu dara sedd wa li leer nañu daal macha allah. <laughs> waaw. Merci beaucoup. Je pense que Sénégal, Sénégal va le battre 2 buts à 1 ou bien 2 buts à 0. Algérie du am dara Sénégal la koy dóor 2-0 waaw incha allah. baax na. deux baax na. baax na waaw. Algérie zéro. zéro bu mu am dara. maanaam daal Sénégal Algérie 2-0. 2-0 lañ soxla day mom lañ bëgg. Euh, en tout cas daal Mbaye Diagne Diata euh Sadio Mané. Ismaël Sarr. waaw Sénégal day door 2-0. waaw 2-0 ak Lerr waaye non Krépin moom yaakaar naa mu dugal Sadio ma defe naa lay dugal de hmm. waaw gëm naa ni lay dugal daal. waaw Sénégal 2-0 moom 2-0 ah, waaw un but moom Sadio Mané day am bii moom waaw day am bii moom leer ci lu leer moom ok.